am na feebar woo soif boo xam ne bu dalee nit booboo gën a dangereux ñëw na ci xadiisul imam ahmad mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne yaati cheytaanu linsan fa yaqul man xalaqa alsamawat fa yaqulu allah summa yaqul man xalaqa al ard fa yaqulu allah xata yaqula man xalaqa allah fa ida wajada ahadakum zalika falyaqul amantu billahi wa rasulih yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne seytaane day dikkal kenn ci doomu aadama yi maanaam ki amee feebar waswas nee na da koy dikkal léeg-léeg ci xelam lay jaar léeg-léeg xel mi di laaj asamaan kan moo ko bind te loolu seytaane moo koy def ci sa xel lay jaar posé la question ku bind asamaan nga naa loolu yàllaa ko bind moo xam nga wax ko ci làmmiñ wala ci sa xalaat nee na mu ne la kan moo bind suuf nga ne ko yàlla moo bind suuf nee na noonu lay demee nag di la laaj fu suuf jóge fu suuf jaar kañ la yàlla bind suuf fan la yàlla jaar fan la xeer yi nekkoon fan la picc yi nekkoon dafa am ñoo xam ne loolu moo leen di sonal seen curiosité yépp mi ngi jëm ci li yàlla bind lu tax mu bind ko kañ la ko bind fan la ko bindee te fekk loolu amul benn intérêt da ngay gis ñoo xam ne dañuy sonal seen bopp ndox mi ñaata litre la fan la jaar géej gi fan la dugg fan la génn détails yoo xamante ni borom ay faratam sax def ko mais day nekk benn détaillant day nekk be benn détaillant lu tax yàlla bind nangam mais li tax yàlla bind nangam bu ko yàlla waxul mënoo ko xam te li gën a grave ci ay xalaatu tubaab ngay toog ay xalaatu tubaab rek ngay nekk nag parce que tubaab yi jaamuwuñu yàlla gëmuñu yàlla ñoo toog rek di théoriser. yow nga bëgg toog ci loolu na bëgg rey nit ñi ci internet bi jinne ji heure bii la ko yàlla bind jinne ji nangam nangam mbir mi nangam muus mi nangam ñay mi fii la jaar ji ndax ji fii la jaar fekk c'est des yoo xam ne amul benn njëriñ nee na yooyu mu lay def loo nag day dem ba àgg ci ne la man xalaqa allah kan moo bind yàlla xam nga léeg-léeg nga gis ci inter inter internet bi ku bind yàlla léeg-léeg nit àgg na ci fitu kan moo bind yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na saa bu demee ba sa xel jox la loolu nga bëgg xalaat ni kan moo bind yàlla wala nit nar la posé ku bind yàlla nee na yonent bi ne bu loolu amee neel amantu billah wa rasuli parce que commencé naa laa dugal ci kéefër neel amantu billah wa rasuli am na benn waay bu posé woon question ne ma dafa dégg benn waay boo xam ni day wax ni ku bind yàlla ma ne ko waxal amantu billah wa rasuli neel gëm naa yàlla gëm naa yonent bi ndax am na détail yoo xam ni vraiment c' est inutile jarul nga ci sonn sa bopp ndax duñ la laaj loolu